salaamaaleykum internautes yi nuyu naa leen ziar leen ñu ñëw ci le roi la mu wax ca doomu Sénégal bii di Sadio maane gannaaw ba mu jëlee jour bi gën a xarañ ci at mi fii ci Afrique gannaaw bi mu jëlee ñaari yoon ballon d'or africain le roi bële di légende ci football mondial àdduna jëmale wax ci Sadio Mané laataa ñuy ñëw ci faram-fàcce gi day ñaan képp kuy gan ci page bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné bés cloche de notification bi ndax vidéo bu fi bàyyi ko nga bokk ca ña cay njëkk a jot Leroy Pelé bind na bataaxal Sadio Mané jaarale ko ca compte Instagram gannaaw ba Sadio Mané jëlee Ballon d'Or africain bi moom mi Pelé nag. ku ne xam na ko ku ne xam na ne marqué na football mondial jël na ñetti yoon coupe du monde moom nag ab doomu Brésil la jamono yi nag jëm na mag bu baax a baax wante nag ma ngay addu jëmale ca Sadio maane gannaaw ba mu jëlee ballon d'or africain bi moom la rappelé ma ngay wax de yow saajo gagné nga. ay fans ci monde entier ñu bari bëgg nañ la man mii ca ñooña bokk wante lañ la bëggee mooy di football bu rafet ba ngay def te ànd ca fulla ak fayda ak jom loolu day lañ la bëggee mu ne ko tey jii ballon d'or bii nga gañe day maa ngi la ciy jaajëfal di la ci delloo njukkal di la wax de nga continuer ci route bi nga nekk ci yoonu yi nga nekk bu la ko dara yàqal yow sama xarit bii di Sadio maane nee na day bari na barrière yoo xamante ne war nga koo dagg bari nga record yoo xamante ne tey jii war nga koo dagg war nga ko égaler war nga ko battre te tey jii loolu lépp dama ci encouragé le roi Pelé loolu la wax ci Sadio Mané bataaxal boobu la bind jébbal ko Sadio Mané nee ko daal Sadio yow. sama fans nga te tey jii dama lay supporter te dama lay continuer di la supporter te maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci Ballon d'Or bii nga gagné kon mbokk yi le roi Pelé loolu la wax ci Sadio Mané te moom ku xam na ne légende bu mag la ci football mondial. kon mbokk yi loolu lañ leen indi loon dina wax ba ca kanam ci suñ beneen vidéo jaa ngeen jëf.